ñu ngi lay fay Pape Ngagne. al Ousseynou lan nga ñu mën a wax ci xibaar boobu ñu jot euh, léeg-léeg. waaw lu wér mooy Nicolay brigade. recherche bu gendarmerie bu kaolack teg na ko loxo ci tisbar moom ñu baye ko woon ci gambi fi nga xam ni foofu la nekkoon fan yépp moom nag ci jamono bi kenn xamagul ana lan mo war ñu téye ko waaye daal ci yenn xibaar yi ñu baaxee te ñu jege lool takkader yi jot nañu wax ni ni moom promoteur de lutte mbourwaa boobu leen moom liñ koy tuumal ci loo xam dafa tàq daal ci mbirum affaire lamanteen bi bi nga xam ni moom na ca fan yi la ñu ba ñu jàpp jàpp ci sax ki directeur général boobu lay hôtel ndax moom it loo xam dafa tax ci denc ak jëfandikoo sinébar li li ko lay nag tamit ñoom neen ñu daal ci ay xibaar yi nga xam ne moom la ñu baaxee suñu suuf loo xam dafa tax ci mbir moomu lépp ba tax na nag moom ñu ko doon wër fan yëpp tey jii nag ca tisbaar ni nga ko waxee daal la ko takk der yi teg loxo ci jamono yi nag mu ngi jàkkaarloog enquêteurs yi ñàkkul fii ak ay fan wala ak ay waxtu ñu gën ca am lu gën a leer mu ñu xam lan lañ koy toppee ak tamit fan lay mujj ci mbiru nit li ko laaj ci affaire boobu lee fam ngañ Al Ousseynou Diagne jërëjëf 20h incha allah ci dellu